ak euh, la déclaration récente du président Macky Sall euh, ca Paris la France kàddu yu mu yëkkati yow boo ñu ko doon jàngatal lan lañ mën a jàpp teg ci kaw taawal bi ndaxam say déclarer na sa candidature wala ba léegi ni ko ab Ablaye moo waxee mbir yi leeragul mi ngi ci nii wii nii non euh, te it voilà mi ngi nuancé. président Macky Sall il est habitué à communiquer. Mhm. Euh, depuis euh, fort longtemps mu nekk ci. arène politique bi auprès du président Abdoulaye Wade uh-huh. xam na naka ngay préparer opinion il a une communication évolutive maanaam dafa am communication bu yokk saa su ne day am lu muy feeñal uh-huh. depuis les États-Unis il a dit que ce n'est plus une question juridique uh-huh. maanaam amatul problème mu maanaam droit fii la nangam sangam bi mu jógee foofu mu ñëw si dialogue bi il dit ouvertement ce que Bamba a dit pour terminer ñii ni bëgg ñi bëggul ni warta bokk ci luñ ko teg seen bëgg-bëgg mhm. mandat bi bu ngeen bëggee dangeen ma koy ñaan ci njekk ma may leen ko ni leen jël leen mais ci njekk nag mhm. ci njekk bu ñu demee France mu jàkkaarloo ak ñin ñu bëree bëri mhm. parce que jóge na fële la question juridique n'existe plus léegi il fait comprendre à la masse à travers la communication mu ngi comprendre loo nit ñi nii le mandat su ma neexee damay bokk. Mhm. parce que réglé na question juridique bi ba may opinion bi ñu wax ci. bi mu ñëwaatee mu jàkkaarloog dialogue bi won leen ni affaire mandat bi du da ngeen di topp seen bëgg-bëgg rek ba tax ni ma da ngay kii ci man la dépendre ak ni ngeen ma koy ñaanee mhm. donc il donne légitime il légitimise ah. mandat bi téye ko ci loxoom mu ngi koy légaliser di ko légitimiser téye ko ci loxoom mhm. mu dem en France avec une ce que les pu remarquer avec une forte mobilisation. très bien ça une c'est forte mobilisation ça waxtaan rek. Mhm. une forte mobilisation. où il a communiqué sur l'image d'abord. oui. def loo ay bruit. Mhm. boo ne nit comprendre nga communication. le mhm. président Macky Sall a fait énormément de bruit à l'extérieur pour que l'intérieur puisse braquer son regard sur son départ sur son tournée sa tournée européenne. ci dem bi mu nekk. ñëpp daal di ci teg seen bët braqué coow li ciy xew moo xam xeex la dóorante nu mënti demee ba ñëpp teg ci seen bët mu def une forte mobilisation dans une salle devant la porte ñu teg ay barrières mm. ce qu'on a jamais vu ci moom muy dem bitim réew wala benn njiitu réewu Sénégal dem bitim réew ñu teg ay barrières ah, d'après man mais parce que da doon sóoraale contre mobilisation mm. surtout bu génnee si diaspora parce que non il a su assurer la mobilisation mm. ku xam image mën ko jàngat di nga xam ni il a réussi déjà la mobilisation parce que bu yàggul dara gis nga ay ñu nekk ci wetam ñu dem bitim réew comme ay Abdoulaye Ndiaye Ngalgou et tout cela def ay meeting d'investiture ay Genève et tout cela pour préparer waa diaspora bi lui il vient gis loolu yépp sotteeku alors ci daje boobu noonu mu ni leen dafa am ñoo xam ni dañu taxaw pour yàq Sénégal waaye dina ñu am ñu jàkkaarloo ak ñoom mhm. dinañ jàkkaarloo ak ñoom njiitu réew mi daal ni d'ailleurs dinaa jàkkaarloo ak askan bi. nee hmm. na dina jàkkaarloo ak waa Sénégal. communication bi bul fàtte ni daf ko commencé ci ginnaaw di indi bu fii. bien dinaa jàkkaarloo ak askan bi annonce. Hmm. pour préparer lii ñëw. Hmm. waaye nag dafa am neneen nu mu koy préparer ci biir jëf. mun yéen booloo leen France waxul ak waa France de il s'adressait à son groupe qui est Sénégal. booloo leen parce que biir APR Benno Bokk Yaakaar am na ay nit yu fa ne. yoo xam ni seeni calcul mooy président Macky Sall bu mu bokk. tànn leen ñoom mun leen rester unis booloo leen pour ñu xool dox bu ñuy dox bu jëm ci kanam pour victoire 2024 wax jàngoo mm-hmm. léegi nañu dox nan jox dox bu jëm ci kanam pour une victoire 2024 lan lañ ci mën a léegi tu prends la communication fi mu ko commencé bu fii mm-hmm. ci biir wax ji réglé na question juridique moom lui concernant depuis bitim réew mhm. États-Unis mhm. wax na ci biir réew mi avec les forces vives de la nation yi nekkoon ci dialogue bi mhm. que ni moom mandaawam c'est légal mais dañ ko koy ñaan ci njekk le fait de mm, dugal loolu noonu ci bopp nit ñi mooy kon mu ngi ci sama loxo après waxtaan mën naa bàyyi bi mu demee bitim réew il a fait énormément de bruit ba waar réew mi di ko xool mu ni leen ñu préparer dox bu jëm ci kanam bu ñu avancé loo pour la victoire de 2024 man nag du ma ni il sera candidat man dama koy déglu mais mais mais Saalum yow yaa nga wax ne tu es légaliste mm-hmm. ngay déglu conseil constitutionnel effectivement oui moo tax du ma ko déglu moom du ma du ma junj ay du ma junj ay wax ba tax ma interpréter. d'accord li may déglu. Mhm. mooy président Macky Sall. qui prend courage à deux mains à l'intérieur du pays ci biir réewu Sénégal. Mhm. mu jàkkaarlook Sénégalais yi ni man candidat la. waaw wala damay dem élection deux mille vingt wala du bokk. yaa ngi dégg wala mu ni du ma bokk ñaar yooyu rek damay tànn nit dañu am. ay incertitudes yoo xam ne dañ ko war a leeral. waaw sa candidature. Mhm. président Macky Sall. la validation de son de sa candidature. pour le conseil constitutionnel mm-hmm. ak le choix du peuple bu mm-hmm. buñ ca yeggee ak l'opinion on a trop l'opinion l'opinion moom l'opinion internationale mm-hmm. dañuy joxe seen ay seen ay orientation rek réew mu ñu mënti dem fii joxe nañ fi ay am na sax ay notes yu ñu fi bind xam naa ni ca kanam dinañ fa dinañ ci ñëw te appliqué wuñu ko mais bu lii yépp jàllee moom président Macky Sall daf ni woon du bokk bi muy bi muy def modifier régler modifier la constitution de 2006. moom la Ablaye rappelé léegi. loolu la wax. Mhm. bindu ko ci livre. Mhm. waxloo ko ay jege ñaaleem waxat ko. Giscard mhm. nag doon doonoon président France waxoon na ni les promesses électorales nangage que ceux la naïveté d'y croire. yaakaaruma ni ci promesse électorale la nekkoon bi mu koy wax. comme waxagul man damay taxaw déglu ko. et je revendique toujours ma position de légaliste du conseil constitutionnel. tout à fait auprès du conseil constitutionnel. parce que nag am na loo xam ne bu ñu ca yeggee. Hmm. président Macky Sall bu nay candidat la damay bokk. Ah. mu waaw mun munuñ munuñ ko tere bokk. déedéet. ce sera quelque chose qui sera derrière nous. Hmm. Hmm. li ci des mooy li nekk sunu kanam. bu demee conseil constitutionnel bu valider candidature am. loolu c'est déjà acté. malgré que des dommages peuvent avoir mais ce sera déjà acté hmm. et ce sera légal parce que kuréel bi ñu fi teg ñoom ñoo ko validé waaw léegi nag li ci des mooy l'appropriation des Sénégalais le jour du scrutin naka la ñuy démontrer que nous n'étions pas d'accord sur hmm. ta candidature foofu lay xaar alors Cheikh Omar Talla yow it bëgg nañu am sa lecture ci euh, la déclaration du président Macky Sall en tout cas euh, plateau bi wane na ne ku ci nekk amee nga ci sa lecture euh, bu ñu commencé ci Ablaye Mbow jàpp na ne mbir mi dafa nuancé ba léegi te effectivement président <laughs> waxagul ne xaajul maanaam mbir mi jaarul ci digg bi ndax sénégalais yi am na ñu nga xam te ni doxuñu ci ay lu nuancé ak nii wii nii non moom dangay jaar ci digg bi ne damay wala duma alors yow ban lecture. lecture <laughs> xam nga euh, réew mi waxta waxtaan fi dafa jafe. parce que mës naa def émission Ndoumbelane ak ku ma mag mot ma bàyyi sax yëkkati yenn kàddu yi. man nag sama wax du neex. am na ñoo xamante ni li ñuy wax sax gëmuñu ko. parce que wax am na ñoo wax xool ñoom ci seen bëgg-bëgg. wala xool ñoom. ci seen intérêt. ak i avantage wala xool ñoom ca la ñu far. man damay bëgg rek am constance. c'est-à-dire gisuma fenn foo xamante ni war na fa jaar ba mën a am mandat boobu muy saako. loolu laa gëm aussi et je le dis. sax bi ma ko waxee nee na ma xaw ma moom journaliste xaw ma international Paris alors ma ci laa ko tontu woon ne ko rajo Oxygène bi xam ma sama collège fa la jàkkoor sud laa jàngee Sèm Tidiane. animateur reggae woon foofu <laughs> après on sort des experts à deux balles après on sort Ismaïla Madior Fall euh, je te donne une anecdote mm. moi j'ai été à fac de droit bëgguma woon tardé cours magistral Ismaïla Madior Fall ah je vais lui rappeler ça ah, oto bu rouge la yoroon su ma juumulee daf ma doon jaral ma teel a dem parfois du ma sax ndékki pour ñëw taa mu ñu jox euh, cours euh, état fédéral quand Ismaïla t'expliquer c'est-à-dire xam-xam bi mais gis nga amal xam-xam bu gën a rëy ci àdduna mais xam-xam bu àndul ak maandu day indi problème da nga teg benn vidéo Adama fay xaw ma ko c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce que peut-être ñenn ñi mën nañ am lecture nii dafay gêner sa sert mais pour man en termes de conviction ou d'idée ou de pensée chacun peut mën na xalaat bu kii sama papa la wala dara Euh, pour man c'est c'est un homme libre. et puis il est resté cohérent. ba pare élection locale yi il s'est battu à Grand Yoff voilà toujours mis à côté.

dañ fi nekk ci benn situation bu ñu indiwaat en 2011 les gens se battaient contre troisième mandat et cetera damay bëgg bu may wax ma koy argumenté di ko teg parce que ku may dégg nga xam ne li may wax am naa fu ma ko teg Ablaye Wade bi mu ñëw Sénégal constitution bi mu fi fekk mooy bu 1963 on peut faire l'historique si vous voulez Senghor Mamadou Dia après on a eu euh, la crise de 62 Ablaye Wade bi muy ñëw bi muy defar constitution bi boobu la ñuy doog a def ci constitution wu Sénégal nombre de mandat yi. ñu bindoon ci constitution boobu ñu ne la durée du mandat est de cinq ans et est renouvelable une seule fois ñu am lu ñu wax article transitoire maanaam benn article boo xam ne dafay leeral benn situation article boobu xam nga lu ñu ci bindoon le président en fonction exerce son mandat jusqu'à son terme toutes les autres dispositions de la présente constitution lui seront applicables maanaam président bi fi nekk day def mandaam ba mu jeex constitution bu bees bi doog a ngàllu ci kaw loolu 2001 mooy situation Wade par contre Macky Sall bi muy ñëw dafay fekk déjà bi muy falu nombre de mandat bi fekk na ko fi ba pare mhm. du sumay wax mhm. Macky moo jël engagement toog wax na ko wala wax ko demul Paris wax ko Mm-hmm. ne c'est clair moom mënul am <laughs> lu weesu ñaari mandat d'ailleurs bind na ko la moo tax ñu choisir les moo nul nul mooy la mm-hmm. mais nobody kenn maanaam kenn du njoogu affaire damaa tur boobu daf maa neex du Salif Sadio du kenn mm-hmm. du président sortant di ku ko bëgg a nekk du ko ko mës a nekk nul ne peut exercer plus de deux mandats yamuñu ci de lu tax ñu indi consécutif Les mots ont été choisis de manière précise et claire maintenant euh, chacun va avoir sa son interprétation gis nga alxuraan bi yàlla su ko protégé wul woon bàyyi ko noonu da nga gis màndikat bu wëlbati alxuraan boppam sàcc bu ku nekk nga lewal yow li nga a lewal la la vérité elle est claire et sans équivoque maintenant après j'ai pas besoin de déclaration de Macky parce que moi j'avais vu venir je l'ai toujours dit am na waxuma le silence parle mais les actes qu'il a eu à poser. montre suffisamment que justement ci tànk boobu la nekk quels sont ces actes. ñëpp ñi nga xam ne dañu taxaw ne Macky waru am troisième mandat yan bi day dal seen kaw. ku jóg def meeting d'investiture Macky yaa ñu doy Macky sunu candidat Macky 2024 ñu dóor la décret bi wàcc sa kaw nga am promo. yamu ci actes yi muy posé parce que bu fekkoon Macky su dafay politique. su fekkoon dafa nekk koo xam ne dafay libéré wu du politique. Mhm. cest lu muy def da ngay def ak sobriété du dem di inaugurer wala di wut ay mobilisation kon ça veut dire que il prépare sa troupe. ça veut mhm. dire que mu ngi dem en guerre. quand je parle de guerre je politique il est en train de safité mhm. de faire ay tournées de faire tourner ses hommes. Euh, diaspora bi mu dugg fa fi ñu waxoon ni Macky mënu fa dugg balaa ñuy dem ñu mobiliser et cetera kon ci jéego boobu la nekk lu tax mu nekk ci jéego boobu. bi mu choisir premier ministre automatiquement taf sama main dafa daw dama ne eh waa ji day politique. parce que hmm. Mimi Touré am na ambition am peut-être lii ñam day nekk koo xamante ni am na lu mu bëgg. mu dem jëlee Amadou Ba avant muy jëlee Amadou Ba Amadou Ba Macky Sall xooju ko fi woon bañ fàtte Amadou Ba voilà. mu seetlu ko Amadou waxul deful dara il est sobre Macky indiwul sax premier ministre boo xam ne day fës fan yi sax nga commencé gis Ba mu dem ci affaire xar yi wala ay quelques communiqués. yamu ci. parce qu'il est suivi ministre de ci gouvernement bi mu mujjee teg nan la ko tuddee gouvernement de combat combat de quoi. Mm-hmm. dans ce gouvernement on a vu des communicants des gens qui sortaient pour porter le combat de Macky. Mm-hmm. donc c'est des actes qu'il a eu à poser. Mm-hmm. donc sur le plan politique. Macky il déroule maintenant quand il revient Aïssata Tall Sall déggoon naa fi lan la xaw ma la xaw ma c'est un problème xaw ma mathématique xaw ma juridique moi je l'adorais cette dame je l'adorais euh, pour plusieurs raisons mais duma ci bëgg a parce que gars yi ni ñuy wëlbatikoo mm. dañuy piano si sunu maan maintenant moi je m'adresse à, à mon grand frère le président du Sénégal di nga fay docteur Pape Diouf de allez-y parce que su ma ko waxee mooy euh, su ma mbok la su may mbokk fi nekk et tey barki dem dama taal RTS bëriwul na mooy jàpp télé yeeg ma gis Macky Sall dem Portugal ñu war ko recevoir Ablaye je sais pas suivi les images ñu defal ko défilé fas yi waru ko ñu defal ko tapis rouge il a été avec tous les honneurs automatiquement ma kii à l'international am na link ko c'est je pense à la mairie de de Lisbonne. oui euh, Lisbonne c'est la capitale. waaw Lisbonne Lisbonne waaw. dem Russie. fi guerre bi méttee dëgg. Poutine ku toog ak moom table vingt mètres ki ñëw toog moom à distance. quand même fan yii Macky di mu toogaat foofu. àdduna bi ñëpp jox ko bopp. man pour man ñi koy pëtëxal naa ko na dem force troisième mandat na dugg si. il sont en de vouloir lui faire passer par la petite porte. alors que Macky Sall tey. Mm-hmm. man si man boobu depuis Kofi Annan. man may ne xale damay dégg Boutros Boutros Ghali xaw ma woon tur bee ma neexoon mais tey moi j'ai vu le secrétaire général des Nations Unies à Macky. Eh. pour man tey. au niveau international. mais pourquoi tey il devrait songer. il a du boulot à organiser des élections démocratiques. des élections inclusives libres et transparentes moom. tey au niveau international l'Afrique a besoin d'être plus présent. Ah mais comme am na link boobu. wax fa dëgg sa yàlla. comme gars yi organisme mooy seen retraite internationale comme ay Abdou Diouf mais regarde Poutine qu'est-ce qu'il a fait Poutine dañ ñëw ne mandat fii la yam il prend son premier ministre il en fait son candidat